li yonente ba jàngale woon ci ay jëf yu baax guddeeg bëccëg te jëm ci mbakkar feggu denc ko ngir ëllëg jëf yooyu yu baree bari la sallallahu alayhi wa doon ko wax ña ko waroon ña ko waroon wax ko ña leen waroon ñu ko jokkalante ba ni yàlla baaxee nu agsi ci nun nu koy wax ci fajarug dimaas bind bi weesu danoo nekkoon ci sant ku la defal lu baax ci lañu nekkoon ci bind bi weesu sant ku la defal lu baax ku la defal lu baax nga sant ko ndax ku sant yàlla te santoo ki la defal sant ga du saf yàlla alayhi salaam wax ne ku leen defal lu baax jéem leen koo fay bu ngeen ko munta fay ngeen ñaanal ko ba mu yëg ne fay ngeen ko waaw tey nag ñu ñëw ci beneen tomb bu am solo muy saraxe ak joxe ci yoon yu baax walla boog anam yu baax saraxe saraxe mooy li nit ki jékki-jékki def ko boo ko tëg yiñ ko digal nag boo ko tëg yiñ ko digal du ma wax ne nag yiñ ko digal baaxut waaye bokkuñu ku jékki-jékki xëy wut sa lu baax def ci sa enveloppe waaw te bañu doon bu weex ndax enveloppe yu weex yi <laughs> ci nekk léeg-léeg du bokk ak yi nekk ci enveloppe yu këkk yi waaw waaw dégg ngeen enveloppe ab xaaj Abdul Aziz baag faqir ba ko seet si woon kon sarax mooy li nit ki jékki-jékki gindi lu baax joxe ko bokk teg bi nga xam dañ la wax naan la saraxel lu mel nangam mbaa lu tollu nangam waaw yooyu leneen la waaye sarax daal mooy bii nit ki moo jékki-jékki génne lu baax def ko ci mbuusam mbaa ci enveloppe am bu dee yuy dem ci mbuus la mbaa ci enveloppe waaw léeg-léeg nga dégg ku joxe caabi oto waaw ku joxe caabi oto léeg-léeg nga dégg ku joxe caabi kër yooyu lañ dee sarax waaw infaax nag mooy yëg nga ne koñ bi jàkka ji nàngam waaw léeg-léeg mu nekk suñu waxtaan ñoo Fatimor mële ca Kolobaan Beldam Couture yal na yàlla yokk ko wér ndax yooyu dafa am solo wujoohul xayr wala wujoohu yi nga xam ne mu ngi ci penc mi te nekk almashaare mooy ay projet yooyu ndax léeg-léeg nit am xam-xam waaye jëntukaay yaatal lam xam du am ñu ne ci rekk ba xëy na ndeysaan waaw ana diw ndekkatali na ana na ana diw ndekke làqu na waaw ndeysaan bu joowul xayree ngoog ñépp nag mënuñu ko ndax dafa am ñoo xam ne yàlla seexlu seen alal ku yàlla seexlu sa alal yàlla tere bu nit ñiy def lu baax yow yaa nga leen di yedd ak xas te yor li nga yor waaw waaye tabarkàlla pénc mi léeg-léeg nga dégg ko ci ku ci xam ne tabarkàlla day def jëf yu rëy yooyu waaw dégg ngeen ci bërki démb rek waaw alxalifa euh, sëriñ muntaxa nu ko yàlla yokku wér waaw yëkkati enveloppe bu baax a baax a baax teg ci loxol a Cheikh Mouhamadul Bachir ayyadahullah lu ko demal yët waa marché ba lu am solo la loolu bu ci marché ba amoon ñaar fukki nit ak juróom <laughs> bu ci waa marché ba amoon fanweeri nit bu ci waa marché ba amoon junni nit waaw kon de góom ya bu bu bu bu wérutit sedd kon alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom la yàlla yónni woon mu xam ne dund gi dafa gàtt kenn mënu fee toog ba say projet àgg doom nga fi bàyyi mu continuer projet mbaab sët léegi nag mu am luy guddal aw fan waxuma nag yokk ca ñaari at ak ñett waaye def fi loo xam ne nga jóg fi du tax a jóg fi waaw mën nga fee jóg te loolu du fa jóg waaw mbokk mu daa jënd ci njàkk ja ay wantiloo ajab da aset al amin ne ko baax na de wantiloo de baax na waaye léeg-léeg nga jënd ay wantiloo yoo xam ne danañ fi jóg bala nga fee jóg ne ko lu xew mu ne dangay fexe ba def yoo xam ne nga jóg fi du tax ñu jóg fi mu ne waaw rahmatullahi aley wa radi anhu xaaj abdul asis al amin sunu sëriñ ba sallallahu alayhi wa sallam mi ñu doon jàngal lool te duñu ci soññ daf ne inna allaha taala yaqbalu sadaqa wa yaqusuha bi yamini fa yurabbiha li ahadikum ila axir al xadis alayhi salaatu salaam nee na yàlla day nangu sarax jël ko ci loxob ndeyjooram loolu nag moo daan moo daan animé suñ yaay Aïcha ndax yunit def na yàlla day nangu ab sarax te def koy jël ci loxob ndeyjooram su ne Aïcha buy saraxe xeeñal ca la muy saraxe parfum xeeñal ca loxo ba parfum lu xew mu ne comme ci loxo bi yàlla lay teg allahu akbar ci xoolal woowu déggin rek waaw xool woowu déggin rek mu ngoog nee na yàlla day nangu sarax loxoom ndey jooram la koy jële waaw bu ko jëlee nag di la ko yaral ah waaw di la ko yaral nit di yare aw fas wu ndaw ni nit di yare aw fas wu ndaw ba mujj nekk fas wu mag bu dee fas wu jigéen mu mujj jur aw mol mol woow bu dee jigéen mën a dem ba jur aw mol nga daal tàmbalee am ay fas nee na noonu nit kiy def di yar noonu la yàlla yi defal nit ab saraxam allahu akbar noonu la yàlla defal nit ab saraxam mu ne léeg-léeg nga ko saraxe tibub cere dem fekk mu toll ni montagne mu Uhud hmm? waaw waaw léeg ko saraxe doggu mburu dem fekk mu ni montagne waaw loolu de ku ko dégg te xam fi yonent bi waxe te gëm ko dootuloo yéem ab sarax waaye dootuloo euh, xeeb ab sarax mhm. nee yàlla mooy nangu sarax loxo ndeyjooram la koy jële main droite daal di jël sarax ba nag di leen ko yaral di ko yar di ko yar ba nga ñëw fekk tibub cere boo saraxoon saraxe woon mu toll ni montagne mu waaw mu toll ni montagne um ñi xamul Uhud te dëkk Dakar xam nañ montagne mii nga xam ne ci la monument bi nekk noonu mu toll montagne moomu ñu ko teg waaw montagne moomu ñu ko teg Uhud mën nga ne nun la toll waaw nun la tolloon nit ñaa koy yéeg at mu jot di ko yéeg at mu jot junni at a ngi nii nit ñi di ci yéeg ak ñeenti téeméeri at ak ñun fukki at ak ñaari at moo tax mu mel ne waaye ba fa yonent bi di xare-xarem ba tollutoon ne dama bëgg wax ne kon yonent bi nee na nit mën naa saraxe tibub cere mbaa dankub ceeb mbaa morsob yàpp mbaa daggitu mburu mbaa million mbaa quarante million mbaa kër walla oto walla nangam àgg fa fekk mu toll noo xam ne da nga naan waaw lii lum doon ñu ne ko sa dankub cere ba nga saraxe woon la wala sa million ba wala sa quarante ya wala sa wala sa wala sa kon aleyhi salaatu salaam mi ngi baaxe xeet wi lu am solo fi nekk nii ci dëkk bi boo laajee ñoom madame Ba ñoom xaar xumma ci wàllu euh, privatiser nga gis ne ñoom ñiy liggéey ci mel noonu xam nañu boo jëloon sa cinq mille jënd action wala dix mille nga jënd ñaari action walla bu at mi jeexee bañ dajale la si weccet woowu dana ëpp la nga ci dugaloon fuuf rawatina boo demee ba am nangami at ñu door laa jox la nga ca am waaw waaw alayhi salaam waxaat ci wàllu sarax dee leen joxe ñu dee leen jox qaala taala anfiq yabna aadam yunfax aleyk waaw ku bëgg ñu lay jox del joxe waaw sëriñ Abdul Ahad radiallahu taala moo daan wax ne lu waay bëgg na koy joxe lu waay bëgg rek na koy joxe moo tax mag ñi daan def boo ñëwee ñu xam ne ndàngam nga bëgg nga jox leen ñu def ko ca loola rawatina ki ñëw ne la am jëfe ko nangam am jënd tàngal waaw walla am jënd mbiskit walla am jënd ci dàll walla yére dafa am ñoo xam ne boo leen ko masaan def lool lañ cay def waaw may wax suñ mbàkke léeg-léeg nit ne la jëlal terrain bi daal ne la def ko daara walla jëlal kër gi def ko daara bokkut ak nag jëlal rek yonent bi nee na dee leen joxe ndax ñu leen di jox waaw dee leen joxe ndax ñu di leen jox kuy joxe ku nekk léegi tey ñu lay jox kon ku bëgg ku lay jox del joxe yab na aadam anfiq yunfax aleyk del joxe ndax ñu lay jox maa ngi ci min kunuusi sunna maa ngi ci assadaqa wal infaaqu fi wujuhil xayr waaw kon mu waxaat ci beneen hadis mu ne maa min maa min yawmin yasbahu fiihi li ibaadu fiihi illa malakaani yanzilaani nee bis boo xëy rek bis boo xëy doomu aadama bu ne man mii ak yéen saa boo xëyee waaw ñaari malaakaa ngi wàcc ñaari malaaka ñi ngi wàcc mel ne malaaka mi soo joxee mu ñaanal la mel na malaaka mi soo joxewut la lay ñaanal ñoom ñaar ñépp loolu rek lañu yendoo ñaan rekk soo joxee ñu ñaanal la kenn ki soo joxewut kenn ki moo lay ñaanal waaw kenn ki boo joxee mu ne allahuma aati munfiqan eh, xalafa yàlla kii joxe million mu ne ah, mu ne ko joxal yàlla na nga ko jox juróom-ñeenti million ak bosom bi muy fukk ki joxe fukk yàlla na nga ko jox euh, fukk yàlla na nga ko jox téeméer waaw noonu ñu ko topp woon ca masalu la si nun fuqoon amwaalum fi sabilillah waaw saa boo joxee benn ñu tegal la ca juróom-ñeent aj Ibrahima Sakho mu ne sunu borom bànkam ba amul lu baaxut lépp lu baax la moo tax boo joxee lu baax mu tibb ca jox la moo ko daan jàngalee noonu radiyallahu taala anhu kon malaaka menam di wax naan allahuma aati munfiqan xalafa yàlla kii joxe joxaat ko yàlla kii joxe nii mun naa ah mun ne joxaat ko ki joxewut nag menn malaaka ma naan allahuma aati mumsikan talafa mooy yàlla yàlla na nga yàq lim am ah waaw waaw ki joxewut malaaka mi naan yàlla yàlla na nga yàq lim am kiy joxe malaaka naan yàlla yàlla na nga ko wóotalal lim joxe waaw nun rek lañu yendoon ak ñoom ñaar ndax léeg-léeg gis ku yendu bés ba bés ba jeex te sërëxiwu dara léeg-léeg gis ko ko def ñaari bés ñetti bés une semaine weer wax naa leen nogay saraxeb nogay liibarub ceeb bi dana fa am at mbaa lu ko jege liibarub ceeb nogay di ca koppati sarax donga ya di ca koppati sarax donga ya ba muy juróom-ñetti weer te liibarub ceeb bi du jeex kenn mësul gis loolu waaw kenn mësul gis loolu saraxab nogay ya ngoog dërëm nag moom wala ab ab kii di eh, eh, nogoy def na lu yàq la du saraxew fukk du saraxewu juróom ci xaalis du saraxewu fukk du saraxewu juróom waxuma laa la jëm kaw waaw lay <laughs> wax ko mu ne ma crédit mu ne waaw mu ne ma mille francs lay jënd mu néew waaw <laughs> yàlla na ko yàlla yërëm sarax alayhi salaatu salaam mi ngi wax ni ñaari malaaka yooyu loolu mooy seen liggéey kenn kaa ngi naan yàlla yàlla na nga wóotalal ki saraxe leneen maanaam yàlla na nga ko remplacer leneen te boo joxee bu la yàlla joxee nga xam ni jox na la ndax yàlla doo joxe benn mu jox la benn ah, ah. waaw xaadim sàmb nee na ku lebal yàlla ker guddi la lay fay ngay xalam ko rek mu tax a jeex waaw xanaa guddi moom ker googu moo gën a yaatu kerug màngo wala kerug duubaali mbokk yi yàlla noonu yàlla xiir ci saraxe waaye yàlla noonu xiir ci yàlla ñu xiir ci saraxe lu am njëriñ waaye yàlla boobu ñu xiir ci saraxel jinne yeeg njuuma yeeg géwant yu garaaw yi waaw yàlla na nu xiir ci saraxe lu baax waaw tabarkàlla eh, alayhi salaatu salaam ci bunt boobu nga xam ne ci la ñuy soññ duñu ci jàngal mu ne yaqulul abdu maali maali wa innama lahu min maalihi salaas salaasun nee na alayhi salaatu salaam nee na koo seen ma nga naan maa moom lii maa moom lii maa moom lii waaw doomu aadama ak a bëgg loolu maa moom lii maa moom parking bii maa moom kër yii maa moom compte bii maa moom maa moom rek maa lii maa lii maa lii mu ne sa alal ñett rek nga ci am nee sa alal ñett rek nga ci am waaw soxna sala noteel waaw sa alal ñett rek nga ci am waaw ñett yan maa akal maa akal ta maa labis ta maa aatayta ñett rekk nga ci am li nga lekk li nga sol li nga joxe ñett yooyu la nit am ci àllam li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga sol mu ràpp yaa ko moom li nga joxe mu jiitu la yaa ko moom ñeenteel bi muumoo ko mooy li nga fi bàyyi bi ngay dem ñu seddoo ko bu yombee séddoo ñu coowloo ci dóorante ci kurpañ bu jafee séddoo waaw waaw yi addis bu jara taxaw gi nii maa ngi ci min ku noo si sunna maa ngi ci buntub asadaqa saraxe wal infaaqu fi wujuhil xayr maa ngi ci addis boo xam ne yunt bi nee na yaqulu l maali maali wa innama lahu min maalihi talaatu maa akala maa labisa maa ata nee na nit naan sama alal sama alal sama alal maa moom lii maa moom kër gee moom fas wi lu ne nga ne maa moom mu ne waaye ñett daal moom xam na ne yaa ko moom li nga lekk mu rees yaa moom waaw nga sol mu rab yaa ko moom li nga joxe mu jiitu la yaa ko moom waaye lu dul lool nag moomoo ko waaw lu dul lool rekk moomoo ko yaa ngi ko bàyyil nit ñi bu neexee seddoo ñu séddoo ko bu neexuta seddoo ñu coowoo ca dóorantey kurpañ waaw la ma waxoon benn famille ndeysaan ca miraas ma ne leen kii génn àdduna dey su ngeen seetloo li ngeen wax mooy jàmbaar la woon ndax lii ñu bëgg a miraas dey kaar-kaar bari na waaw juróom benn téeméeri million jëm kaw ci espèce waaw ak nangami kër ak nangami oto ak nangami magasin ku ne xam na le bari la woon na ñu ne waaw mooy leen waaye nag lim amoon doyu ko woon moo tax mu doon liggéey pour mu gën a bari tey nag man lañ sant ma miiraasal leen ko séddale leen ko ndax yaakaar ngeen kenn am ci lu la doy yaakaaruma ko alal joo xam ne kenn na ko moom doyu ko ba tax muy xëy ko gont ndax bëgg mu gën a yaatu mbooloo bëgg koo séddoo ay jabar ay doom waaw ay jabar ay doom ay waajur bëgg koo séddoo ku ca ne bu ca bëggee am lu ko doy bu seetloo dana xam ne loolu munta nekk moom kay baa lay doon ak yoonal ak nàngam nàngam waaw rekk nag waaw tabarkàlla waaw nee na kon doomu aadama loolu rek la am ci ci alalam li lekk mu rees moo ko moom lim sol mu ràpp moo ko moom lim joxe lim saraxe moo ko moom lu dul lool nag nit ñee ko moom way donn yee ko moom bu neexee miraas ñu miraas ko bu naqaree miraas nag rekk tabarkalla xam ngeen fu muy mujj alayhi salaatu ci njàngale moomu bëgg nun ñépp nuy saraxe nee na koor ab pakk la sarax nag moom day far bàkkaar day fay bàkkaar ni sawaray fay ndox allahu sawara ni muy ni ko ndox di faye nun la sarax di faye bàkkaar ba mu fay gémm ne man lañ tabarkal mu jeexal bunt boobu ci ne doomu aadama bu ne bu yomal xiyaamee ci sa ker sarax ngay ngay ngay taxaw waaw nee na kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi xataa yuqdaa bayna naasi kenn ku nekk sab sarax yowmal xiyaam day nekk menn mbaar nga ne ca ma ne xam naa nogoy ko <laughs> mbaarum yi moom as mbaar lay doon ba moytuwut yaramum yépp ci biti lay nekk ndax sarax yaa tuuti mbokk yi teg leen seen baaram foofu yal yàlla may jàmm ak tawfiix may nu lu nu saraxa may leen ko ak seen ñu fa war a ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg la nag firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa